لا الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما àdduna ndax day bëgg a jeex am gaañu baax ñi bëgg a jeex am bari yu ndaw yi bëgg a jeex mu gaay xam na pexe ka xam le woon ak tarbiya ak ka xamun tarbiya moo buñ demee ba surgiya ku leen di wax na pexe ka woote woon ci àdduna ba ñépp wuy fi fàdduna nan jéema te daaduna te jéema wuy mooy pexe Seex Bamba Seex Ibra jam ci tamsasin nun ñii fi des fu nuy defe yoonu murit naka pexe ab seet du dem ba doom jikkéem Seex Rafaalay doom jikkéem moo rawi bokk rawi doom topp mi waaj yéen mooy pexe ab seet morom yaay topp ma sëriñit murit yaay topp ma nan jéema wàlli seen poma te boppam yi ngeen di fexe Cheikh Ibrahima Ganga landi na moo tax ñu dëddu àdduna na Bamba sotti na wàcce na texe mos nay xibaara njëbuloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo moom raasi ko jox ko say texe tegtal ko yoon wa ab murit di aw baraw pexem marit baam ngërëm bari murit te dootu ree di tex texi mu daal di dem tay ba Dakar ngir dégg Bàmba di fa xaar seet naa sëriñ tay ba Dakar ci njàng lay xamee pexe mu tëdd guddi listixaar ba mu xëyee ba tisibaar sëriñ Maxtaar Ture fa jaar leeral nga woon pexe Maxtaar Ture nga yori joor yenu ko jëm Mbàkke Kajoor Seex Bamba yoni ko caamur Seex Ibra topp cay fexe ba gis ko sëriñ Adama Géey sànni mbiram daali ca moy mu wan ko Bàmba mbër mu rëy sëriñ ba naan ko foo fexe wax ko tegtal ya fa moom sëriñ ba wan ko la fa moom mu xam ni gis na ko ko moom mu daal fa mbiram joxe ma wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fam ci weeru koor bisu dibeer leen mbir ma wóor Cheikh Ibra moo rëy pexe mu sooba far jiitu gu rëy gi war na leen fu ci baatinam ba nuy texe jaraama Seex Ibra jaraama Seex Ibra Faal lamp bi Seex Bamba taal leeral yaa kamaal yàlla na nga dolli beraxin ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekkoon na daara yi du soor moo jëkka yalwaan jiroon ñi di ko tex texi yendoo liggéey fanaane gaayay nelaw banan xuréet baluy ginaar mi korkoréet moo ka xewal daawul doxi mu ba xawal nu yoo di raam moonu tereewu yoo di naam fekkoon na nuy jàng fa maam moo muy muriitu kay fexen fekkoon na daa di liir moo dindi alal baag di béer lu Bamba wax mu daa di lu mosa am daa li joxe ba xawal fali sagar moo ba xawal sakal kaw moo baxawal saxoo sikkar daaw fa bàyyi di rox ba mu demi mbàkkee bawol daf ne na waa kër gi bawol may sokk tey rooti di wol boleeg liggéey di ko joxe lu bamba wax mu daal di naaw fooreem ju rëy ja sant naan ko da ngay del tu ginaaw jàngil murit dum pexe mbooleem murit yi di ko soow mu mel ni dof bu mat yeew ba mujj far ñépp ne siiw meloom ma far di ko doxe mu jiitu far amul moroom far geni bokk geni doom jaraama jaraama xadim wàcc nga wàccaale nga kexe yow mosu laa juyoon ndigal naka nga jog takkoo ndigal saay saboor duñ ko mbugal garmi yaa tax ñuy texe yaa jëkk a jébal sa xol fekkoon nga gaayay xor-xoral ñi lay taqal setal yaa xale ngir mi ñuy doxe yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daw weranteekub sëriñ baje bi yaa bari njariñ waane yàgg nga naxe am ngay dërëm ba am ngërëm ab say dërëm jëndee lu mosa am tàbbal ngërëm ay junni daal nga daan joxe jox nga ko aj yey gileem yu soobu ngur du safi koom soldaar sa yaa joxe sa doom falilu faal am na texe sa ndaw da daan dem ba di yóbbu ay sang koy di war gaal yooyu muy bon doo denc lëf ba muy max moo tax nga mel ne ak saxaar fu nar dem na fa jaar kuy ñaani paas na seeti gaar bu mu nekk banaan ak a pex Seex Bamba kawloo Mustafa Seex Ibra kawloo Mustafa diggante Marwata ak Safa ku aji war na fa doxi Seex Bamba am naam Fallilu Seex Ibra am naam Fallilu ku gëm na faale Fallilu kon mu jëm dootu toraxu Seex Bamba bég leen am Basiir Seex Ibra bég leen am Basiir mbég moo ci dem lekk ba jegeel na kay toggi joxe Seex Bamba am naam Saaliw Seex Ibra am naam Saaliw nan jéema roy ci Saaliw ba bi aljana yi texe Seex Bamba nam Abdoulaye Seex Ibrahima nam Abdoulaye Abdu mu nekk mat na waay bul wedi ceebokaay texi yàlla nañu aw seen tànki baay ba mujj toll ne seeni baay ba mujj boole seeni gaay amiin ndax ñépp ay texe Cheikh Ibra dem na wàcc na lu mosa aajo faju na ba xëy bi aljana nañ farlu tey ñuy joxe kenn mos la gis sa samu booy du daw ka koy musloo jooy moo jara woy jara jooy ci àdduna mën nax déglul ma net li fi ay ndamam ba delloo xam mbiram ba bég ba dellu gëm léegi ragal yox yox jaaraama wandal Seynabu Njaay i soxna jaara yor di jaay yaa ko mosal waa njare njaay saw nga ñi rot na yaa texe diggante njukkeeb jàmmatil dañ daan faroo ko soli yaa tax ba diina di fa leer nga kon daa toxe doomi dameel ya fi newoon yaa damm mbir man yoroon tey ñépp ñépp fi nun kenn amatul lu muy fexe yaa yóbbu mbaaxaan ca xafoor yaa tax ba xol ba dootu fuur yaa tax mu sen yetu nguur fab yetu ngém di laaji pexe te xam ni mos naa yaru junjum fu mu jëm jiwe yenaa kundum muy xaas di bàkk ci kundum tey mu yena nun ay pexe yaa tax ba de laa wa ci buntu di baaxaar wayaf lu bàyyi lekk Dakar ngir sopp Bàmba mi joxe te xam moo doon dooni buur lum mosa wax ñu daal buur la dale mbaakal ba Kajoor moo amee woon seeni pexe yaa tax ba soxna Mbenda Faal ak ay siree faal den doomi soxna yi di taal diine ju rëy doxe te xam ni seen baaya moom feder ba taalagul kanoom mos a gis ay jamonoom xolam ba daawul yox yoxi yaa tax ba abdullahi ñaqib lam bi far na ko la gaay gi doon moo jaxat tabax ay kër di joxe te xam ni mos na dox di moom tey jii mu mat sëkk boroom ngay denc doomam di ab sangam lii doy na xar day pexe seerafaal amul moroom sàkk na mbër yu tol ne moom leeral na penkoom ak sowoom lu yàqu dootul ñox ñoxi nda dalee ndar ba ca jàll ginnaaw yoonu saxaar mbër mu fii rëy bañ ne kaar Seex Ibra jàll cay pexe la dalee ndar ba ca jàlla ginnaaw yoonu saxaar mbër mu fiire yi bañ na kaar Seex Ibra ngay laaji pex ndar la ko doomi leeral na bopp jaara tey waykat wa sàmba jaara moo tax denam bay bax-baxi mu jóg faak si ndar na faal jël fa dooni ngóone faal def ko ni taal tey mbir mi néew moo bay texeel leeram nga far ba ak si kees ku ñëw mu duy la ba nga fees li nit ku ñuul nit ku xees ñëppi ba woo fa ngaay mexee sëriñ bi ñëw njurul bel mu ñëw da day këram ya dootu daw guddeeg bajak ñam ya di ñëw bàmba xëy sàkkum pexe mbooleem murid yi mbàkkilam kenn xamatu ku sëriñam ku ni ni ngeeja dal di dem àdduna sépp yi jax-jax mu daal koy bi Moustapha ngir xam ni yoon na mag ñëpp dem moom mu ne fa mus la taxoo ku yox yoxi la xëy fekk ab sangam Tuubaa la tukki woon camaam Bamba ko jiite loo ñu ñam diggante penko ma kuy texe ma ngay janoo tooli dërëm meñen ma gën junniy dërëm gis na lu raw ñi betem am na raw leen doon fexe ngërëm lay yeneen bay gërëm Ababakar ma jëkk gëm la seexi Bàmba di tegal Seex Rafaal bisub texe man ko ma yónneen bay sola Ababakar yor bari sol diina ya tofal yàlla na ko bamba fab joxe wala far yàlla ko seexi bamba ful ta ko gaay dogal yoo xam ni kenn yoxi amiina amiina ni leen amiin ndax ñu boole leen ci mbooti way ba lu ngeen sàkkooti am ca subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin wal hamdu lillaahi rabbil aalamiin